waaw salaamaaleykum ma ngoone ñu ngi jaar di la di sant yàlla tey jii boo xoolee presque ñu ngi ci organisation bi ñu ngi ci ligne droite bi jëm ci làmb ji mais tey bis bu mag la biir Parcelles Assainies parce que fête lay doon parcel Assainies moom mooy open press Modou ñu koy defee ci stade municipal bu Parcelles Assainies mais disposition yëpp jël nañ ko xam nga ñun moom wax dëgg yàlla yàgg nañ ci l'écurie Rock Énergie ku ko xam xam ko ci dal ak yàgg ci organisation ci. Euh, ci yar ak teggin xam ci ay xale yoo xam ne xale yu élégant ñoo fa nekk kenn xamu leen ci ay yenn détails booleeg ay fans club yoo xam ne ay jàmbaar lañ démb boo xoolee def nañ benn feu de joie boo xam ne démb terrain ACAPES bi nga xam ne moo ne parcelle yomb la feesal mais terrain ACAPES bi démb ku ko xool ni mu mel ba deux heures di matin xam ni waa parcelle civilisé nañu te affaire bi fête ak fool lañ ko jàppee xam nañu ni sport fo waaw beneen bi aussi. Euh, may remercier aussi fans club yi génération xarañ génération xarañ moo ñu boole Tmax ak yeneen ñëpp ñuy woo tamit euh, ñi dëkk ci Parcelles Assainies 1 ba 26 kon ni ñu koy waxe les cités environnantes ñi dëkk ci cité environnant yëpp ñu ngi leen di woo di woo ñëpp ñi nga xam ne ñoo safoo Modou di ko supporter di woo ñëpp ñu ñuy béggee di woo les autorités locales di woo les autorités étatiques yi nga xam ne dañu dëkk Parcelles Assainies ñu ñëw soutenir Modou Lo jël euh, di remercier aussi les agents de sécurité mooy les forces de défense et de sécurité yi nga xam ne dañu nekk parcelle muy ñaari police yi parce que boo seetloo li ñu jël ci agent ñuy gërëm les forces de défense et de sécurité bu baax a baax a baax a baax di wax rek ni euh, jël nañ les devants presque lu jege deux cents éléments dinañ fa nekk sapeur pompier dina fa nekk budget budget nañu lépp ñu nga xam dañu nekk ci organisation bi euh, journalistes yi tamit xam nañ ñu leen di caser ak fi ñuy toogee donc yooyu daal wax dëgg fa yàlla jël nañ matukaay yëpp yëpp yëpp yëpp yi wane ni bis bi war na mën a jàll ci jàmm aussi tamit di préparer di wax ni waa Parcelles yëpp nañu wàcc ndaxte làmb ji euh, force de défence et de sécurité am nañu yoon mooy fi jëm jaaree PA yi jëm Canada folo Parcelles Assainies yëpp di jaare danañ ko sécuriser de bout dañuy yegg ci stade bi bu ñu yeggee ci stade bi tam turbine bi féete côté Parcelles Assainies foofu la toogee foofu danañ leen sécuriser weñ sax du leen laal ba mu jeex mu jeexee ñu sécuriser la waale ñu ñibbisi te aussi tamit di wax ni. Euh, ñi yaakaar ni Modou du ñëw state wala dara dañuy nax seen bopp parce que Modou gaynde sibi la te aussi pare nañ ko niñ ko war a paree ñooñu nañ ñu xaar ñoom ñaar ñooy dugg ci digg géew bi te ku mën sa mborom duma am nañ yaakaar ni suñu mbër moo mën moo ëpp doole incha allahu rabi ñuy woo waa Parcelles yëpp à partir de 16h stade bi fi ñu toll nii nit ñi ngi commencé ñëw mu fees del ñu foot ñu fete ànd ak mbër mi tatagal ko yokk ko courage ba dimanche ñu indi ndam li indi ko Parcelles Assainies